am na lu mu wis moom Tonnerre ndaanaan la pied droit lay jiital Laye Pythagore ndaanaan la pied gauche lay jiital ñoom ñaar ku ci nekk xeex am na ku mu doon avantage am ñoom ñaar ku ci nekk bëre am na ku mu doon avantage am ndeysaan ay mbokkam lëng nañu toneer akolaat ko laay Pythagore ki mujjee ànd ak moom mu ngi noonu ci diggi géew bi yor benn bouteille ànd ak moom saan ñoom ñaari xale yaa ngi noonu ñu ngi fii ci Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar Sidi Jaxate moo fi woo ndaysaan le promoteur ndaysaan di Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar xale yaa ngi noonu Tonnerre ndaysaan Tonnerre ak Laye Pythagore Laye am na lu mu diw ci kanam gi ndaysaan Laye Pythagore am na lu mu diw ci kanam gi Tonnerre pare na Laye pare na arbitre bi ngi xool Laye Pythagore ba xam yaram bi niinul ma ngay xool ginnaaw gi ndaysaan xool na kanam gi xool ginnaaw gi moom arbitre ndaysaan xool na kanamu Tonnerre xool ginnaaw Tonnerre nee na ko dafa ri tax na fomp tuuti ndaysaan am na lu ñuy fomp ci kanam gi baax na Tonnerre am na lu mu sànnil ci kaw laay Pythagore arbitre baa ngay génn Laye Pythagore am na lu mu wis la leen waxoon ñoom ñaar xool leen seeni tànk gis nga Tonnerre jiital na tànk ndijoor lay jiital na tànk càmmoñ ña ngay leet arbitre baa ngi wax ak ñoom ñaari mbëri mu ngi leen wax li règlement bi bañ ak li mu nangu Tonnerre laay Pythagore arbitre bi laaj na Tonnerre laaj na juge bi nee na pare na laaj na beneen juge bi pare na laaj na laay laaj na Tonnerre arbitre bi sifflé na mbokk yi samedi 15 janvier 2022 fii ci Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar Sidi Diakhaté moo ñu fi woo grand combat dox ci diggante Tonnerre ak Laye Pythagore il est vingt heures ñaari xale yaa ngi leewaatoo Laye Pythagore jiital tànk ndijoor joor Tonnerre jiital tànk ndi ñoom ñaar bu ñu xeexee dina neex kan mooy dem diggante Laye ak Tonnerre kan moo ciy dem ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar ñaari xale yaa ngi xoolante ci bët Tonnerre Laye Pythagore Laye daa bëgg a dem waaye bu demee lu mu fay fekk Laye Pythagore Tonnerre Tonnerre a ngi koy déglu laay maytul parce que Tonnerre daa bëgg xeex te daa xam fi muy dóor waaye laay Pythagore naanaan la mu ngi koy gëdd daa bëgg Tonnerre taxaw ñoom ñaar fu ñuy mujj laay dóor na daw jàpp ko Tonnerre tëru na ko Tonnerre a ngi dóor ci laay ngi ngi dóor ay percute ci suuf fayu na mbaa dóor mu daanu du am ma ngay dóor plaqué na ko bañ na plaqué na ko bañ na bañ na ñu ngi noonu ñoom ñaar ñu koy dóor laay ngay dóor ci suuf laay ngi dóor Tonnerre siggi na Tonnerre siggi na laay jël na Tonnerre moytul raay fi mu jàpp baax na laay Pythagore fi mu jàpp baax na loxo ndijoor bi jàpp na Tonnerre jàppul ma ngay rocceeku ma ngay dóor ci suuf laay fay na ma ngay dóor ci suuf laay ngay dóor ma ngay dóor ma ngay dóor laay Pythagore ngay féet ki ci suuf ndeysaan Tonnerre daa bëgg a fayu waaye jàppul moo tax laay Pythagore Tonnerre laay dóoraan na laay dóoraan na ma ngay dóor laay Pythagore fi mu jàpp baaxul naan ko subaa ngi naan ko plaqué ko ma nga laay plaqué ko waaye ko nii laay dina la gis Tonnerre daw na jëli ko laay bañ na laay bañ na Tonnerre jëli na ko laay Pythagore Tonnerre ñoom ñaar fu ñuy mujj Laye Pythagore Tonnerre Laye Pythagore Tonnerre ma xeex dañuy génn saaku yi ñoom dinañ génn saaku yi Laye Pythagore Tonnerre ndaysaan ñoom ñaar ba tey am na luy xeeñ. ndeysaan. ma ngay jàpp. Tonnerre Laye Pythagore. Tonnerre Laye Pythagore. Laye bi mu jàppee ba tey fi mu jàpp bàyyiwut ma ngay dóor ci suuf. Laye Pythagore mu ngi dóor ci suuf Tonnerre a ngay fayu. na ko ndomba. Laye Pythagore wër na ko ndomba. faqan na ko Tonnerre daan na Laye Pythagore. Tonnerre daan na Laye Pythagore Tonnerre daan na Laye Pythagore Tonnerre daan na Laye Pythagore eh Laye daanu na jël bu ko daan na Laye Pythagore eh,